Andalouse handal beat jangeen jëf waay Omar Jabel Diop boo ma mënee yokkal instrumental boobule gars yi di ko consale bienvenue dans Arru-Med cette émission qui illustre les bienfaits de la rue à travers le b-boying le graffiti le MCing et le DJing dalati leen jàmm beneen yoon ci seen émission bi ngeen moomal seen bopp moo di Arru-Med bi illustré lu gën a baax li gën a neex li gën a cool li gën a tendance ci hip hop galsen ayca top c'est parti avec beaucoup de vibe beaucoup de bonne humeur et beaucoup de karmacha tos voilà et beaucoup de tojoro-mojoro quoi. Tu comprends? Les tojoro-mojoro, c'est c'est des genres de choses que je comprends pas. Je le dis comme ça mais En tout cas, ça fait toujours un réel plaisir de vous retrouver xam naa ni yéen tamit ci ñun ngeen bokk ah. moo tax ñu leen di baal wax di leen baal wax di ñaan yàlla boole ñu baxal ci benn cin ngeen féetee ci suuf ma féetee ci kaw <laughs> vous vous attendiez à un discours assez sérieux vous vous êtes trompé. Voilà, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Moussa, alors euh, derrière Moussa et Papi, comme d'habitude. À la régie, il y a énormément de personnes. a Saré, il y a Bira, il y a Omar, a Tafa pour le son. Énormément de plaisir à tous ces internautes et téléspectateurs qui sont appuyés par Ousmane et euh, bien entendu Doudou pour que vos messages sur euh, les réseaux sociaux et le logo de l'émission apparaissent dans les règles de l'art. Fu ngeen mënti nekk ci Sénégal, jàppale ne ñu ngi leen di nuyu di partout dans le monde, vous êtes accompagnés par nous et nous, on vous jusqu'à la fin de cette émission qui va durer une heure de temps. li ñuy def moom mooy j'ai vu un jeune grandir avec le Reptile, euh, le label Reptile Music et finalement il a craché sur le morceau. Il a signé par un nouveau label. Label bi bàyyi mu dem signé waat ak beneen label. Label bi mu toggoom yàgg. Je comprenais pas quoi. mu bàyyi mu ne bàyyi na. mu ne bàyyi de quoi. léegi est-ce que carrière solo du métti pour yow booy. monsieur Boy ah il a sorti une vidéo exceptionnelle man de su fekkoon ne année bi fii lay yem moom lay jox vidéo de l'année je sais pas pourquoi mais attends on aura une autre vidéo de l'année ce sera tout à l'heure vous allez le découvrir dans cette émission aujourd'hui je reçois énormément de talents et des biens des talents exceptionnels pour vous les amis téléspectateurs je déteste vous trahir je déteste faire aussi des publicités mensongères c'est-à-dire wax leen loo xam ne du dëgg donc pour prouver tout ce que je viens de dire pour la vidéo de Haeckel je propose de le regarder euh, et on se retrouve juste après tey je suis en mode rakhtia alors avec euh, beaucoup de talent c'est un jeune avec beaucoup de talent beaucoup de talent beaucoup beaucoup de savoir-faire euh, quand est-ce que vous arrêtez la musique là merci Ousmane Régie dégg naa soo Ousmane Régie dégg beaucoup Ousmane jërëjëf merci Aïcha j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau de Aromed aujourd'hui parce que c'est un plateau <laughs> même quand on est dans la rue on le fait en mode plateau j'ai le plaisir de recevoir deux jeunes que j'ai envie de vous faire découvrir peut-être vous les avez vus sur internet vous les avez entendus à la radio vous les connaissez peut-être mais la majorité le grand public ne les connaît pas aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire qui vont beaucoup faire pour le hip-hop du Sénégal. Je présente aujourd'hui Maybe ñaari dërëm Alioune Mbaye Nder woyoon na fi dërëm yaay mais booy bi ñaari dërëm la woon. tu peux venir Maybe Maybe nag daa sol daal relevé kawas yi feeñ Maybe comment vas-tu. ça va foo dëkk. Euh, Las Palmas HLM Las Palmas. HLM Las Palmas moo nekk Géejawaay. voilà kon waaye Géeja nga dëkk yow. non comment tu t'es retrouvé avec discrimination Talla. Euh, si net bi. si net bi lañu ñu xamante parce que. Eh, du émission déewante du confidence daal waxal ci kaw. waaw ci net bi la xamante parce que dama doon euh, enregistré sama projet solo. Mhm. sama nekk quoi mais mun ma woon mixé quoi. donc moom gis naa ko si net bi muy def ay euh, ay publication et tout donc ma contacté ko pour mu mixel ma donc foofu la ñu xamante après mu déglu projet bi mooy sama premier projet daf yëgu la waaye Guédiawaye dina saf ci émission bien parce que je suis parti à Guédiawaye pour dénicher un autre talent qu'on avait vu dans Aroumbed mais très rapidement quoi brièvement quoi alors je reçois sur ce plateau quelqu'un qui a quand il est venu à la télévision sans le savoir sa mère m'a eu au téléphone yaayam daf ma woo léegi ne ma Pape Sidi sama doom mu ngi noonu di ñëw li muy def kontaan naa ci dama bëgg nga xam ne ñaanal naa ko ci ay beaucoup d'émotions j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir As The Best from Guédiawaye as the best bienvenue yeah. sur le plateau de Aroumbed aujourd'hui ça va mm-hmm. yaa ngi cool cool mais bi vous vous connaissez yéen ñaar yeah on se know waaw xamante ngeen waaw vous vous knowez quoi mm -hmm. du verbe du verbe knowage en anglais ah no waaw verbe knowage knowing quoi knowing yes <laughs> as the best sa yaay daf ma woo léegi ne mm. ma dafa kontaan ci yow li ngay def daf lay ñaanal mm-hmm. euh, elle est très fière de toi ta mère Yeah. C'est une maman qui est super méga géniale ça quoi d'avoir une mère qui te soutient qui te pousse. non sant rek alhamdulilah parce que yombul tamit quoi ngay nekk ci hip-hop sa yaay si jàpp. mais qu'est-ce que vous avez ne pas parler très fort comme ça. non su ngeen waxul baax li ngeen wax du génn. si dëgg la je nekk ci hip-hop sa yaay si jàpp parce que hip-hop gars yi nu ñu ko affaire bu négatif. Mhm. ñenn ñi pour ñoom boo duggee ci hip-hop baaxoo. Mhm. nekkoo ci nekkoo ci fu gars yi nekk alors que ne ñun mooy loolu ay acteurs lañu. Mhm. on est là pour dénoncer la nga xamante ni mooy loolu moom la suñu cité di dund te mu laaxatu trop ñu koy génn genre ñun ay rappeurs lañu mais on est engagé te suñuy parents tamit peut-être dañoo gis si ñun lu nice c'est pourquoi ñu si jàpp du ñu soutenir. Voilà. Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui aussi, comme tous les jeudis à 14 sur la 2STV, vous avez la possibilité de poster vos dédicaces en commentaire sur nos respectables pages Facebook, Aroumbed, Pape Sidi Fall, 2STV. Et ces euh, commentaires que vous faites seront directement euh, passés au bas de l'écran comme vous le voyez comme ça présentement ni ngeen koy gisee muy jàll au bas de l'écran nii maybe euh, ci yow laay njëkkee maybe tu es un artiste qui habite HLM Las Palmas tu as eu à avant ñuy dem ci euh, production bi nga génnee ma xool ko déjà pour commencer tu peux te présenter à nos téléspectateurs parce que ñu bëri dañuy gis affiche bi euh, dërëm euh, ñaari dërëm <laughs> on a envie de savoir pourquoi ñaari dërëm à l'heure où on parle de Euh, dislocation avec le franc CFA. toi tu sors ñaari dërëm avec toi 2017. lépp lu nekk ci information ci affiche mixtape bi da ngeen ko imprimer ci xaalis bi même ton visage. j'avoue que c'est pas gentleman comme xaalisu kii comme comme kii ngay nuróol euh, Louis XIV le premier. non César. voilà non pas Louis euh, Louis XIV va César. <laughs> alors euh, parlons de cette euh, mixtape teel moom bu ko sànni si plateau bi comme ça dëkk tu peux te présenter à nos téléspectateurs. waaw waaw nem bi mbay mbay bii la mbay mooy sama tur vraiment bon donc. Euh, Babacar quoi. mbay moo nekk sama kii. moo nekk sa kii voilà. donc gars yi dañ may tooñ ne ma ñaari sant nga am mbay Mbaye Mbaye Mbodj. Mbaye Mbodj voilà d' accord. donc euh, mbay bii laa jël comme place parce que anagramme euh, mbay la c' le même mêmes lettres mais dañ koy dëpp mu jox bi. Mhm. donc euh, maa ngi commencé rap depuis 2011 je dirais si ay groupe sama site ak ay amis d' enfance. dañu mhm. par la suite ñu dem ma commencé solo 2013 intégré waat beneen collectif bu tudd Serify. donc par la suite ñun Serify fa la affaire bi commencé parce que ñoo yoroon matos pour def pour euh, production ñu dem ba amatuñu local quoi. Mhm. si laa jëlee matos yi yóbbu sama gaale balaa defee sama première mixtape ma prise sama bopp et tout donc euh, mënu woon mixé si laa xamee 10 après par la suite euh, mu signé ma si bi on a continué ensemble l'aventure quoi. Dip déggal ma naan Dip 10 ban xeetu contrat la la contrat de production à long terme, à court terme, durée indéterminée. J'ai pas compris. C'est quoi les techniques euh, tactico où vous avez collaboré pour la signature de ça en fait du signature pour lii mais signature depuis parce que dof yëngu doon bokkul woon ci signature bi donc coproduction lañ ko def mais dërëm ñaari dërëm ba léegi nii euh, contrat bi nii ci contrat bi ba léegi. ñaari dërëm dërëm c'est c'est c'est un c'est une mixtape. voilà en fait maxi la. mais pour nga comprendre pourquoi ñaari dërëm foog nga en arrière pour xam dërëm quoi. parce que mais ñun ñëpp mënuñu en arrière doo donc. c'est pourquoi voilà donc je vais expliquer voilà. dërëm parce que euh, après Dof Yóbbu Yoon dama toog un an génne ma dara j'avais des sons on m'a proposé de sortir cinq sons mais titre bi lañ amul woon nan lañ koy tuddee donc c'est cinq sons en feed quoi gratuit donc c'est pourquoi on a choisi f la ñu waxoon mais 5F c'est comme 5 francs c'est comme dërëm quoi pour mu gën a authentique on l'a appelé mhm. moo tax. turu dërëm. Mhm. nga génne mixtape bi tuddee ko dërëm voilà ñaari dërëm bii ñaari dërëm la. bii ñaari dërëm la. parce que mais est-ce que après doo génnewaat mixtape def ko ñetti dërëm. non bu yàggee ñu daj xaalis bi yëpp. boo demee ba 10 <laughs> 000 di nga taxaw ah. <laughs> non non pa pourquoi def million benn mixtape. <laughs> dërëm ñaari dërëm sa am na vidéo am na vidéo waaw ah. ñu dem xool ñaari dërëm si c'est dans la mesure du possible avec la complicité de la régie bien entendu Saré Omar. est-ce que je peux regarder la vidéo de Maybe histoire de mieux vous mettre à l'aise euh, vous amis ali euh, vous chers amis téléspectateurs ngeen gën a comprendre ah xam ne dañu indi dërëm après ñu teg ci ñaari dërëm mu ngi nii en zone en plus comme couleur ñaari dërëm allez on regarde et on se retrouve juste après dégg naa liggéey fay moo tax nañ la liggéey ba nga fay ko fi bañal mu ni danga nay ku ëppale mu ni moo may fi kenn doxatul léegi ci neen kon ba amatul bopp neen ku amul cheveux te say ganja kapis bu ci wàcce ñu nun jàpp ñat bi gis sa taatu neen sa démb na tax nga lam plus ngay dem gis ay louja di sëb ba takkal sa bracket rouja ngor ci benn la jaru traversé ñaata ñoo war ñu mën a te mag la violence conjugale eh. te du mësa mësa divorcé bitch Nyanima, nyanima, nyanima. Take over, take over. Take over, take over, take over. Nyanima, nyanima, nyanima. Take over, take over. Take over, take over, take over. From my rock, nyanima, take over. Take over, take over, take over. From my rock, nyanima, take over. Nyanima, nyanima, nyanima. Nyanima, nyanima. Nyanima, take over, take over. ko yee ñi saaga ndey te nee nañu ay rakay lañ nga nelaw ñu ali buuma ñi maran ay raku jàgg leen ñi dëkkir rab nee nañu ma ko rey ñee di kaño ngir yokku seen kañ kon gi du xajam ku ne sa lay Sénégal wax rek loolu du deñ dajale ak yàq ci benn bés nga wóolu mbalit mu këpp kes yàq sa der mel ni musul na fes sa fa yow dong res fii xarañ ci asamaan si kon ñu njëkk a dem ne yi bu ñoo bu gaadi ba paan fii gën a ñaaw ñoo gën a réew ñani ma ñani ma ñani ma tego ma tego ma tego ma tego ma tego ma ñani ma ñani ma ñani ma tego ma tego my rock ñani ma tego ma dégoma dégoma dégoma samay rap nga ni ma dégoma nga ni ma nga ni ma nga ni merci merci extrait de la mixtape ñaari dërëm. yes maybe il sort une mixtape ñaari dërëm mais bon. maxi et c'est un maxi. Ah. pour nga lire titres yi yëpp xam nombre bi ñaata la. c'est dix dem dix titres. Ouais. c'est en forme de cercle quoi que tu l'as mis. en forme de cercle circulaire noonu nga ko joobee. moi j'aimerais savoir quelles sont tes ambitions dans le hip-hop. Comment tu trouves la situation actuelle du hip-hop et quelles sont tes ambitions Tu prépares quoi Bon, d'abord, dans la situation, je crois que on a beaucoup évoluer Si côté, euh, je dirais, technique, quoi. Techniquement, on a évolué. Techniquement, quoi. Technique de communication, technique utilisée pour, pour des sons, technique utilisée pour des vidéos et tout. Mm-hmm. Donc, euh, le lieu évolué, Nancy. euh, bon même day des toujours benn barrière donc il toujours les puristes on a toujours l'habitude de dire que Sénégal mooy dëkk bu gën a hip hop parce que on s'habille tous hip hop donc puristes yi fii la ñu nekk mm-hmm. moo tax doo mën a def yenn affaire yi effectivement voilà donc mais aussi bon ñun suñu ambition lan la ñun déjà lu ñu euh, lu ñu bëgg ci game bi mooy xam nga yëkkati yégal niveau bi indi leneen loo xam ne nii c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir ni d'entendre mhm. donc loolu moo tax ñu nekk fii ak label bi yëpp ñu ngi siy job voilà ak y a d'autres artistes am na ñeneen ñu ñëw ci ginnaaw am na Julio l'absolu am na NFGs am na Paps am na RK donc naa tu as envie de changer les choses quoi en quelque sorte. Ouais. vous avez envie de changer les choses. Ouais. Ouais. donc ce qui se passe dans le game c'est à revoir c'est à changer. quelles sont les choses yoo xamante ne bëgg ngeen ko changé yoo xam ne baaxul wala jàpp ngeen ne bu ngeen dikkee mën ngeen si apporter changement mu amal ñu jariñ ñun ñuy topp game bi ak di ko déglu. bon déjà ñu xool euh, lan la ñuy def ba suñu hip hop ñun di jégal ko frontières yi d'abord. Mhm. loolu mooy loolu moo gën a important fu mu toll nii parce que on se rappelle tous. Euh, ñi euh, daara ji ba ñuy génnee seen album bi am son identité quand ils ont fait le featuring avec Diziz mhm. voilà le tout ñu ngi wax Sénégal moom mooy troisième pays. mais entre temps xool instant bii nii Nigéria fu mu fu mu toll. quand même c'est pas comparable. c'est pas pourquoi. Bah parce que Nigéria dañu def afrobeat te nous on fait du hip hop en quelque sorte soo bëggee comparer des choses population yi bokkut ñoom ils sont vers les cent millions d'habitants yow yaay quatorze millions. Ah, ñoom musique bi ñuy def c'est inspiré de la de l'afrobeat et la musique traditionnelle. des beats euh, modernes et traditionnels donc c'est pas pareil ak euh, rap comme on le fait dans le monde c'est un dénominateur commun quoi quelque sorte. ok quand tu veux quand tu tends vers la perfection musique quelque part di nga dina jafe dina jafe tëkkale daal. d'accord mais euh, c'est-à-dire bi léegi fu ñu toll maison de production yi on parle plus de hip-hop pop urbaine la ñuy wax. Mm. loolu moo tax musique yooyu dañ koy intégrer ci filu hip-hop. lii moo tax puriste yi di la sonal. voilà non pas man man je fais hip-hop. damay def hip hop damay def rap je peux tout faire. d'accord donc moi je suis à l'aise. maybe à l'aise <laughs> on y reviendra tout à l'heure voilà. pour ces projets il vient de sortir euh, une mix euh, un, un maxi qui s'appelle Dërëm ñaari Dërëm maybe il s'appelle il habite à HLM euh, Las Palmas foofu ca Guédiawaye c'est un gosse avec beaucoup de talent c'est euh, maxi est disponible où Euh, c'est disponible dans les studios Alien musique bi déjà sur téléchargement musique bi. download download fay voilà. waaw mm légal quoi. sinon aussi chez Indelma et les beaucoup de studios quoi. Alien musique suñu studio yi partout. d'accord. alors euh, avant de me retourner très rapidement sur mon ami As the Best. As the Best bu dëkk fi nga xam ne moom moo di Guédiawaye. Mm-hmm. As the Best euh, merci d'avoir répondu à l'invitation maa ngi doon wax ak yow léegi ci sa di kontaan ci yow li ngay liggéey di continuer rek mos nañ la gis nga freestyle Omar je te signale ah, ci kanam mën nga ma jox benn beat parce que gars yi bëgg naa ñu tàngal seen yaram parce que Arru Mbed warul yomb quoi warul nekk question réponse sinon ça va ressembler plus à ma génération que Arru As the euh, waaj yëngal géej waaye dégg naa. waaw d'ailleurs maa ngi waajal benn show le 9 septembre bi mooy samedi bii mhm. maa ngi koy defee ji ko ñu tuddee ko delloo njukkal show bon show bi nag boo gisee ma def ko. as loolu delloo njukkal te commencé ko. voilà moom laa bëgg a yaatal nii gars yi dégg ko genre man dama jaar flow euh, def quart de finale demi finale ba finale gis sama waa ko ni ma taxawee engagement bu ñu am. Mhm. di jàpp ci man sama mhm. gaal laay toog nii. rey seen bopp lijjanti ay kaar et tout. Mhm. bon man fekk dafa amoon benn conseil boo xam ne mhm. mu tombé woon ak affaire ma ne ren pourquoi pas ma def show def ko tuddee ko delloo njukkal. Mhm. rendre hommage bi def ko delloo ñu ko bëggoon nañu ko def gratuite mais vu que ni ji pop lañ koy defee tudd fa nga xamante ni yaatu noonu ak géejuwaay instant bi nu fa demee suñ ko defoon gratuite tamit voilà day fees dell moo tax ñu ne ñu koy def euh, entrée pré-vente 1000 francs 1500. kon yaa ngi yëngal géej waaye ba yaakaar nga ni boo defee conseil entrée payante nit ñi mun ñëw. Mm. Euh, jàppale si la mu gën nice quoi. tu mm. penses que tu peux faire euh, effet. mais géej waaye jafewul jafewul intégré en tant que rappeur. du moment que Bataillon Blindé Ngaaka Blindé. Euh, euh, Bee Baller. Mm-hmm. Euh, je parle de Jobs Brain. je mm-hmm. parle de aujourd'hui kan des na y en a beaucoup. il y a ah. IS 814 bits il y a Joel MC. il eh. a bu ma limee Doom. il eh, y a il y a il hmm. y a bi. il a énormément de rappeurs à Guédiawaye instant yi fàtte naa ñu bëri te des na. Hmm. yow nga ju du nekk dans la nouvelle génération direct nga dem euh, foofu nga xam ne moo di ji hip hop hmm. lan la. est-ce que da nga am ñoo xam ne dañ la ngemb. yaa ngi seen ginnaaw ñoo nekk sa ginnaaw. wala nu mu demee affaire bi affaire sa bopp la rek genre hip hop kenn moomu ko. da ñëw imposer sa bopp genre ñun bëkkante grand ci yenn affaires yi di dem ci yenn show yi di ñaan gars pour ñu ñu musée di force suñu ba gars yi reconnaître mm-hmm. donc du ñu mën a tegg tànk dañuy mën a continuer ci même chemin fexe yaatal affaire yi parce que boo xoolee Guédiawaye neexul ba neexul mais mooy capital hip hop déet non mais mooy base bi damal Guédiawaye si Pape Sidi nga jël aaru mbedd ngay dox si tali ku bëgg freestyle di nga tasante ak booy bu ndaw mu génne la 4 bar vite fait parce que dañ koy dund quoi everyday ñun moo loolu mun naa ne surtout suñu secteur chaque jour hip hop la ñuy moo loolu booy ndaw yi sax moo loolu la ñuy laaj hip hop man su ma rombee sama koñ gars yi dañuy bëgg pourtant moo loolu damay ne man defuma dara toju mais vu ko ne kon hip hop mu ngi dox foofu c'est pourquoi booy dama reconnaître mm-hmm. bu ngeen paree dinaa leen expliquer lu ngeen comprendre. Mm-hmm. capitalu hip hop mooy mm-hmm. dëkk boo xam ne. pas bëri ñuy rap mais dañu bëri ñuy jënd rap. géejewaay mën naa bëri rappeur mais bëriwul est-ce que boo organisé concert waa géejewaay dinañ dikk support est-ce que c'est vraiment le cas. par exemple Dakar si on prend l'exemple de Dakar moi je te parle de mm-hmm. Dakar. Dakar boo dans la capitale sénégalaise y a plus de rappeurs. Mm-hmm. que dans n'importe quelle pays, euh, région du Sénégal. Mm-hmm. la capitale. c'est tout à fait normal parce que c'est la capitale. mais tey bu ñu jëlee ñiy jënd rap. ñiy jënd maanaam ñi nga xam ne ñoo yor pouvoir d'achat wu hip hop boo génnee album ban dëkk lay gën a doxee boo de tëgee concert ban dëkk lay gën a feesee si entrée comme ni muy mel entrée payante doonu lay mel entrée gratuite donc mais bon doo doo doo doo tànn Dakar waxuma la Géejawaay kese mais doo tànn Dakar est-ce que waa ñu ngi jënd hip hop. est jaral na leen ko noonu. bien sûr gars tagg seen bopp nii parce que waa Géejawaay ñu toog fii nii bon mais mais non tagguñu suñu bopp. est-ce que yéen waa waa waa buun sax gënuñ leen tax. la ngay teg. mais mais exemple rek la joxe même bu dul loolu ñun ñu ngi def ay initiative soo xoolee mais ban ban euh, banlieue fii nga gis mu def festival Géejawaay nga gis Géejawaay Bayrap Guédiawaye Baye Rap Pikine Africulture Matador. Africulture Africulture Africulture Caaroy euh, euh, ñoom Amadou Fall ba dañu def festival festivillage village euh, bu Wokam. waa Wakaam aussi ñu ngi yëngal. waaw ñu ngi yëngal. ah ak kan ak kan ñooy defaat festival balaa may juum waa Medina dañu def festival. waa Medina waaw Medina dañuy def festival ay festival yu bëri am na Medina Medina am na festival graffiti ne me dis pas que c'est pas du rap c'est du hip hop. c'est du hip hop voilà. Euh, ne me dis pas que le festival de Ama Diop tu n'es pas au courant. il y a beaucoup de festivals qui se passent. d'accord d'accord mais. même Kaay Fecc c'est un festival. non mais d'accord d'accord mais xoolal festival yi bu nekk impact am ak. nit ñu fay ampleur benn festival ngeen am ji hip hop moo leen sagal. non mais mais ji hip hop géejawaay la. mooy mooy festivalu ji hip hop géejawaay Bayrap. waaw mais moom waxi naan Nimza. noonu la mais tamit waaw amuñu ko woon tamit buñu demee. waa nekk si yéen yëpp. non mais dem waa Géejawaay foofu laay di <laughs> indi suy bale. mbóot di yëpp laay génne. non non demul noonu amuñu ko woon tamit buñu demee ba amaat ba am loolu noonu. Mhm. genre festival Géejawaay Baarab dañuy sant. Mhm. en plus ñuy profité man damay profité waale ci di bëggee Fou mala taala parce que aussi moom tamit. sama xulóowaale en ce moment si on s'est. ci dislocation lañ nekk. non mais moom. waaw mais noonu la genre dañ koy pro dañuy profité di ko bëggee waale parce la d'ailleurs moom moom géré sono beeg lumière bi. parce ni moo loolu mais peut dafa gis suñu liggéey ak voilà nu muy demee moo tax mu am envie jàpp si tamit dañ koy bëggee di rafetlu si affaire di ko ñaax mu gën see jàpp parce tamit yombul quoi bëri na fi ay ba am nañ possibilité bu mu am te demewul noonu seen côté donc comme que ñu ngi gis moom dañuy def lu di ko sant xam nga voilà di ko wax mu siy gën a jàpp parce que ñun tam ñu ngi gis suñu bopp ci liggéey bi mm-hmm. grâce à J-pop gars yi xam nañ as si festival yi as grâce à J-pop moom ñeme na yenn seeni mag yi ba ren mu am fitu dem flow amoon objectif jël ko voilà mais xam nga boo comme que demee na noonu mun naa la wax mun naa la wax benn affaire ci Malala mm-hmm. on peut lui taxer mais sa générosité franchement c'est connu de tous. Mm. il est hyper surtout au niveau des talents man defa am groupe de rap boo xam ne Sénégal yëpp xam nañ leen tey. Mm-hmm. quand je leur tendu le micro di leen interroger bi ñu tuddee Fou Malade seen anniversaire. Mm. Euh, muy kër gi dañ ma ne Fou Malade moo ñu fekk Kaolack. Mm. jël ñu indi ñu géejawaay luyel ñu nekk. donc ça ne date pas d'aujourd'hui sa générosité en tant qu'artiste mm-hmm. Mm-hmm. donc euh, xuloo nañ mais du tere ma wax lu baax li ngay def mm-hmm. tu tu es bien tu es quelqu'un de très très en ce qui concerne les jeunes talents surtout en ce qui concerne la nouvelle génération bu dégg bu njëkk ba dégg dinaa ko dégg muy xuloo ak mais léegi bon c'est leur avocat presque. Mm. alors As de Best je t'invite à regarder ta vidéo. ñu xool ko dellu si waat ci plateau bi léegi léegi continuer waxtaan ak yow. incha hmm? commentaire yi moom mu ngi continuer di ak mm. euh, nos amis internautes. Mm. Euh, man tamit xam naa ni tey def naa musiba parce que carax laa sol te waruma woon sol carax. ah. affaire ah non non non non non parce que bu ngeen sañsee nii dama war a sañse man tamit. non dama war a sañse. <laughs> sol carax comme yee comme <laughs> dama sama oto nga indil ma sama sama daal <laughs> sama daal mu ngi sama oto dama indil ma am pap dama sama oto si maal bi sama daal mu ngi foofu nga indil ma ko en attendant on regarde la vidéo euh, de As de Bes et on se retrouve on retrouve mes daal aussi à tout à l'heure yeah. yeah. <laughs> okay. okay. what's up? Underground Jack. Got the best of what's up. North Leeds Broad. That's the best. That's the best. Uh. Okay. Kilifa ci kër gi bul ma woowee jaaw gone gi mag si kuréel si kul ci gembi indi jaaw seen faana laa ci daara ji def naa leen ndongo déglu ma doo déggati keneen booy maa curaay gongo xaatim ci xale ma génne kalaama yi ci kayit yi sama couple bab bi amul mesure ñoo ngi ci sëy bi am baat ba bu lende ku boppam di nàcc lay faaj dama fuuma laab tax ma fàq maan lu ñagas duuma laal bokk easy ma bés prix di séddoo waa ànd bi yëpp laa si faay répété seen géew wane la maximum booy joppa maximum booy ba tax ma waaxu man duma xanju man def si jom booy aas doon cool ah life is good ma def ni bande elgin nit a doof réew am taalibe dem ma boobee DCC seulement si démontrer ma ma voici man la ñuy ci classe yi amay ram yu war stas yi dëbal ni Messi boo jàkkee wëri ma ci sas yi tal double ci kees ci xeetu xoos yi di di gas yi ah man te mënoo tël du gàcce ah man je suis le bu laajte ah ana police tël waa maa ñemee ragal tooñ nga def ma noonu te maa lay dundal ah, traversé flow bi dëgg na face bi monté bu l'est-ouest ki dafa réer ku koy gindi war ko express bu ñu bokkul ak lu lu ndaw ma tuus la leerul ne ko à l'abri faay bàyyi foo ji xaas nga am sa jàmmi side by side ni takarikeen dama may trou dundu gis fas yéene jóob ngir am jàmm doon ngaa ko duma riifu bu dee ñoom rek soxla am gaan avocat ci ñu ñàkk baat lay plaidé duma ñuy ñoo di général mais di moom ma koy séeréer baby like a show du cinquième west nañ underground dégradé ba njeen punch like king fakka nen sa crown jalox la du kaana ba obe wolof ma laaka la kiiri nit non demi nit la wala ma laaka la son bi jox la plaisir noppi ñëw di jaale boo ma jéemalee dee man ak li ñu di jaale maa pare gën la xone ci biir ënd bi booy bii gone fu fële rek a pënd bi booy lii di jooy magi di jooy rango ni taa sama kanam raami yi la leen nu may xoosee moo seet ba boo koy déglu doo gis point accident indi accident nga tële nga def frein ah yeah that's the point <laughs> ok ma sàmbaay mbëri ndaw bay du raas démb bukki mais pourquoi da ngeen di bàyyi ba émission bi ma fay télé bi ngeen door a dugal sama boobu <laughs> merci beaucoup As the Best. Mhm. tu as beaucoup de talent. tu es très jeune en plus tu as quel âge. Euh, man maa ngi am 19 ans. punaise 19 ans. <laughs> waaw. ton âge amaguma gel. non bàyyi nga mais yow war nga gel. non waaw. si non wala waaw. non mën na nekk tamit de. non wala waaw laa wax. non ana sama dàll yi ma yónnee yónnee woon. tey kenn du ma ko Pape tu m'amènes mes choses quand même hein. alors <laughs> euh, maybe. yes. Euh, c'est on est arrivé presque au terme de cet entretien. Ouais. Euh, c'est quoi le message que tu aimerais lancer aujourd'hui en tant qu'artiste? Et j'invite beaucoup de gens, j'invite vraiment les Sénégalais à venir euh, t'écouter et comprendre ce que tu es en train de faire parce que tu le mérites, tu as beaucoup de talent. merci merci en fait bon j'invite euh, tout le monde euh, tous les mélomanes ñu jéem a découvrir artiste bi au lieu que ñuy taxaw ci image yi mhm. voilà ñu xool message bi muy véhiculé dem jënd produit yi ñëw ci mhm. show yi mhm. waaw voilà ñun ñëpp benn lañ quoi ñun ñëpp ñoo far hip hop bi la ñun ñëpp ci hip hop bi lañ nekk bëgg nañu dem ci kanam voilà c'est tout d'accord as the best hmm. bon le message de as the best à part donner rendez-vous aux gens pour ton show bon pour man pour man mooy message muy jox gars yi moo ko nii mooy comme lu may bi di wax léegi nii ñu jàppante suñu biir jàppalante parce que tamit moo loolu quoi ñun la su ma nee jàppalante c'est pas parce que moo loolu da war a ñëw kii mais maam ñu yéenante quoi affaire bi gën a yaatu euh, ñun ay tout tànk la ñun ñu ngi si bu ñu grand yi ubbilul hmm, keneen du ñu ubbil euh, grand yi ñu mën a ñoo ñu mën a maam euh, yaatalal yoon bi ñu mën see jàll vite fait xam nga moo loolu parce que indi benn daal mu dem indi ñaari daal. waaw xanaa ni ngeen daal indi indi benn indi benn indi benn daal. damay jël yii rek indi benn nga dem indi ñaari daal. te yow ay juróom rek nga tànn ci daal yi nga fekk ci oto bi yëpp ah. maa ngi jël tu m'as tout amené sauf. Euh, c'est des c'est jox leen ma sama daal ngeen di jaay rappeur bi <laughs> jox leen ma samay daal. ñu laa koy solee sax comme ça mu gën a nice. Ah. ay Jordan rétro la defal lii ngay gis nii. Neyru kii ba gars solo ba pare. bu néewal doole saa bi non mais sérieusement quoi. ah Sare Sare la Sare amul wax loolu merci beaucoup alors euh, merci beaucoup les donc dégage génn leen sama place. <laughs> sañse naa léegi ba mu leen leen sañse naa comme yéen. Hmm. ma dàq leen <laughs> na leen allez dégage. allez allez allez suñu bañee nag. su ngeen bañee ma ma ma sécurité sécurité <laughs> merci beaucoup les gars. ok c'était vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir. yes je reçois tout à l'heure un autre ndaanaan euh, exceptionnel quoi un autre ndaanaan quoi ok quoi. <clears throat> je sais que am na ñoo xamante ne ni instant yi ñu ngi naan day waane wu waa maa tey loolu moo tax ma indi daal yi man mun naa modeste fu nekk ci àdduna sauf daal la <laughs> voilà pour mu leer quoi ay jodon la ama ah, tegaat beneen bi fii sax joodoon mais ay jo mun naa modeste ci lu nekk ci àdduna ba mu des daal alors je vous invite à regarder l'autre vidéo qu'il faut regarder euh, c'est une vidéo très adorée par ma grand-mère elle me dit paap xale yi li ñu wax ci woddu am na solo xale yi li ñu wax ci woddu xamul na ki ko wax du xale ah <laughs> c'est c'est notre grand frère Mass Black Diamonds avec la collaboration de No Face Undercover Wolof Beat ce son a été juste exceptionnel grand génial méga méga génialissime wadduwaay on en regarde euh, une petite partie et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission ce sera bien entendu avec euh, un grand nom de la musique, du hip-hop de notre pays et de l'afrobeat et de tout ce qui s'ensuit. À tout à l'heure. Regarde. xale double B double B double B. ñu dem ñu dem. aha aha aha. right. gisutuma kenn woon di sër ñoom ñëpp bëgg jëkkër du mën a jigéen waaw góor waxal moo ko waa kumba kumba ci supermarché sava naturel sa bobba na njàmbe ba ci mbomb kenn du fa teg leket xam nga xamoon na jiin day wàññi ak li muy wone lépp sër dafay yokk kumpa lancement wu film bi la yàlla boo dee bool sa ndigg digg yoor yoor dox ndànk sa tànk yëkkati suufu joor mbool amul Dakar kon mu may la sëkk joor soo da maam ma jàngal xale yi nu ñuy taxee sër dërëm sa lafu sër suñ la mayee takk fa lab cat xale bi fi rabal nekkoon jógu fa wodd wodd wodd waaw kumba takk na sër rabal ak piis na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale sër wodd wodd wodd waaw kumba takk na sër rabal ak piis baax na def sa may sa jëkkër ku bëggul ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër ñun dañu sonn ci léggin si Rihanna ak Beyoncé na ma gis Aïda si di boor ni ñuy sañse dem tool am fii waaye ñu ngi lekk kemb ci suufu garab teg ataaya maa ngi maye caaya ku ma li ngay doxe di daagu dégg naa ko samay bro kon statut freeze ma selfie please du yàgg ne kumba kawlo léegi ñu fëgg takkal sa sër nga fekk ci paaw naan rek mu taw indaale ci kër man kay ci boutique bi ay pantalon la ñuy jaay man sër laay lu mu jaar ma jënd na gàtt nos laay ma jaago tuur na diw du wagal sa sër xam bay way na laf cat xale bi fi rabal nekkoon tëgu fa wodd wodd wodd waaw kumba takk na sër rabal ak piis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa wodul wodul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër wodd wodd wodd waawtu kumba takk na sër rabal ak kiis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa wodul wodul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër fetal fetal fetal fetal fetal fetal fetal fetal fetal wonul wonul fetal fetal fetal fetal ñu dellu démb fetal fetal fetal lépp baax na fetal fetal wonul wonul fetal fetal wonul wonul fetal fetal wodd wodd wodd waaw kumba takk na sër rabal ak piis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku man bëgg naa wodul wodul may la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër wodd wodd wodd wodd kumba takk na sër rabal ak kiis na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa wodul wodul may la pluie est maintenant rare jigéenu xale sër retour sur le plateau avec un agréable plaisir de recevoir encore une fois un grand monsieur Mao School Mao Sidibé ah naka la. ça va sant yàlla. ça fait très plaisir de ça fait toujours plaisir de te voir. ben moi aussi ça fait plaisir. pourquoi à chaque plaisir. fois que je te vois je dis j'ai le plus grand plaisir de te voir. ben moi aussi j'ai toujours le plaisir de te voir. yaa yàlla dafa tëgg ñoo xamante ne ni. c'est des machines à faire de la musique. Mawa en fait partie. On peut en énumérer autre, d'autres personnes comme Fada Freddy aussi. Ils ont des mélodies dans leur corps quoi. seen yaram yi daf bu bu ñu defee nii sax mélodie day génn. <laughs> qu'est-ce qui fait ça. Euh, pourquoi ngeen di am mélodie yi fan lay jógee da ngeen di nelaw mu géntu ko wala da ngeen di xool gis ko wala da ngeen di déglu dégg ko d'où sort cette inspiration. xaaral mën naa nuyoo ba pare. déedéet bu nuyoo grawul question la grawul déggee. <laughs> waaw ben c'est. Euh... je sais pas je pense que passion la rek ah. passion la parce que boo passionné ci dara doo doo am maanaam <clears throat> du am temps limite. Mhm. n'importe où n'importe quand da ngay da ngay am envie créer en fait envie créer boobu mooy tax peut-être mélodie di fi nekk quoi. Mhm. dafa mel ni kuy def vidéo. d'accord ki nga xam ne ki day day filmer donc du coup à chaque fois fu muy dox mi ngi xool décor yi di xool image yi fan la mën a filmer fan la mën a filmer caméra yu bees yu génn loolu yëpp du ko calculer ci liggéey bi mais loolu passion moo ko yóbbaale. passion la. donc yow it loolu da lay arrivé ci beat bi on en avait parlé ci benn émission bu ñu defoon dans ma génération on avait vraiment creusé ce sujet quoi. ba mhm. passé woon ci. Mhm. tey nag dañuy ñëw yow ci en tant qu'artiste je te vois jouer dans dans des dans des endroits yu xaw a wuute quoi. Mhm. léeg-léeg ma gis la fii. léeg-léeg ma gis la faa. Euh, ci sa ay prestations nu muy demee noonu parce que lu may dégg Mao en concert en format comme show of the year comme on le fait. Euh, donc yow yaa opté def noonu pour am benn public bu restreint bu élitiste. non man damay commencer damay door dañuy bàyyi ma yéeg tuuti nank ndànk ndànk-ndànk voilà voilà. mais je man je suis pas à la recherche de waxuma ñeneen ñi moom la ñuy def mais bugguma sauter ay étapes et puis jéemuma xool benn popularité boo xoolee man je suis pas très à la base populaire nekkuma ci télé yi nekk nekkuma ci ci ci médias yi de trop quoi. Mm-hmm. et je je cherche pas à à faire un truc. boo xam ne peut-être benn benn événement ci bi noonu war na mën a nekk quoi mais j'attends euh, plutôt un deuxième album bi nga xam ne que peut-être à partir de là je dinaa jéem a song peut-être Saliou Magui en commençant par euh, peut-être Sorano je je sais pas. Mm-hmm. ay grand théâtre. non non grand théâtre c'est pas pour maintenant. c'est pas allah yàlla baax Maw euh, ngay jouer ay petit théâtre ay ay ay ay mais am na benn affaire boo lancé boo xam ne c'est un rapport direct avec aaru mbedd naa la ba sonn pour filmer ko <laughs> mais suñu emploi du temps yi day jaxasoo. Mhm. Maw ngay def ay show mbedd. Mhm. expliquer ma concept boobu ak lan nga si jublu woon show show mbedd c'est-à-dire Maw da ngay dem si mbedd bi quoi. waaw ben show show mbedd en euh, boo gisee ma def lool parce que j'avais vu que ñii ñëw ci concert yi. Mhm. Euh, en général bokkut ak ñi nga xam ne kii am na ñoo xam ne dañ lay bëggee ay la ñu nekk te du ñu am occasion ñëw seet seetaan si la wala ñu dem ay boîte parce que fii su bëri concert am ci boîte la wala ay endroit fermé wala du ñu am xaalis pour ñëw seet si la mhm. et j'avais envie justement dem à la rencontre des gens Okay. Et c'était un, un, un risque bu doon jël je me mettais je me mettais en nu ñu a waxatee dama doon teg sama bopp position position boo xam ne c'était dangereux quelque part parce que Euh, debut bi déjà boo koy def nit yi se demande mais kii lu tax muy def lii ak yooyu yëpp. ban ban but dañuy foog ne politique da leen di ñëw jaay si ay ay ay produits produits nga leen di jaay si ak yooyu yëpp donc au début nit yi dañuy daw et puis au final nit yi se sont rapprochés le plus euh, euh, de moi et idée bi moo doon fekk. nit yi nga xam ne kii laajuñu musique ñu dara nga jéem a partager ak ñoom benn moment boo xam ne ça va durer trente minutes peut-être mais ñooñu dañu découvrir à travers à travers la rue moi j'aime bien en fait yooyu noonu existe na en Europe. Mm-hmm. waaw surtout. existe na en Europe di nga gis kenn ku taxaw ci métro bi yor guitare am joué mais ñooñu c'est vrai que dañuy ñu si bëri tamit dañuy teg chapeau dañuy ñëw yàlwaan gars yi jox leen xaalis et puis surtout man li ma gënoon neex ci loolu moo doon saa yi ma ko doon def taalibe yi ñoom ñoo doon njëkk taxaw. Mm-hmm. te instant boobu noonu pendant un certain temps pendant 30 minutes boobu ñuy seetaan duñu ñu laaj kenn xaalis. Mm-hmm. topp gars yi ne leen xaalis jox leen jox leen. Mm. mais man loolu moo ma ci doon neex ah, parce que dañ doon participer dañ doon nekk ci biir quoi. donc show mbedd yi naka ngeen ko doon en fait da ngay ñëw sonorisation. Mm-hmm. ak ay quelques copains musiciens. Mm-hmm. musiciens ngeen ñëw samp ay baaf. waaw sono sono mobile c'est-à-dire que j'avais deux enceintes yu ñuy recharger parce que idée bi moo doon dem le plus léger possible ba pare mën a jouer n'importe où donc festival de jazz Saint-Louis laa ko defoon a trois ans moom laa commencé. donc euh, dañuy ñëw teg baafli j'avais deux guitaristes am na ay micro ci am donc installation ak yëpp ça prend même pas dix minutes en dix mm. minutes commencé nañu jouer on n'attend pas le monde du ñu woo kenn du ñu xaar au début les musiciens étaient frileux parce que dañ doon wax ni xam nga nit boo tàmmee fii dañ tàmm da booy jouer balaa ngay jouer da ngay xaar ba nit yi jege si nga doog a commencé jouer léegi ñoom ils attendaient ça nit yi ils sont pour nous mm-hmm. c'est nous qui sommes là pour eux donc c'est de jouer pour attirer attention nit yi pour que ñoom ñu am envie jege si mais ñoom laajuñu dara. effectivement da nga paaw toog fee yor kurusam di def xam nga nga xalaat ni kii da nga koy déranger mais da ngay jékki-jékki gis bopp bi di yëngatu nga xam ne lii affaire bi mu ngi koy dugg. mu ngi koy mu <laughs> nga samp sa ay mais da nga arrêté tu as fait une ambiance familiale ak yooyu non j'ai pas arrêté j'ai fait une pause mais là incha allah bëgg naa ko reprendre encore demaat ci biir quartier yi. Euh. et ça te ferait quoi de voir aujourd'hui des jeunes ben ça me fera plaisir parce que xam nga. Euh, parce que loolu communication bu assez exceptionnelle la. Mhm. parce que dem si mbedd rek. Mhm. benn avenue bu toll ne par exemple Bourguiba. Mhm. nga ñëw am benn ruq benn genre parking bu ndaw. nga teg fa sa ñaari baaf. sa ñaari copains yor ku nekk guitare. nga yor sa micro taxaw di way mel ne kuy concert. mel ni ku dof kenn laaju la <laughs> euh, mais tu te dis mais comment est-ce qu'il peut faire ça lu tax muy def lii. Ah, alors que foofu da nga fay gagner affection wu nit ñi et puis mhm. vraiment un artiste de proximité. je trouve que c'est très bien faut pas l'arrêter. am na ñu bëri ñoo xam ne ci lañ ma découvrir tamit donc loolu noonu dama ci sant yàlla quoi mhm. donc ah, du coup Saint-Louis je suis reparti euh, trois fois foofu def ay show mbedd. bien sûr première fois bi ils avaient pas compris deuxième fois bi ils étaient là la troisième fois ñoom ñoo ko doon laaj. bien entendu donc je viens je fais mon concert bi nga xam ne moom ko yóbbu par exemple à l'institut français wala leneen su ma paree ci loolu après ma mayee show bi ci mbedd ñu def bal poussière. ngeen def bal poussière et puis amul heure li ma ci neex mooy bébé yi dañuy ñëw da nga gis ay famille yu doon romb taxaw seetaan. après avancé et c'est ça qui est qui est qui boo ko rombee tu as de quoi snapper maa romb fële muy concert ci mbedd bi. waaw ah. c'est quelque chose de joli ah mais exactement yow lu tax ngay def a nit yi ils ont tellement une distance ak artistes yi ils ont l'impression que des fois da ngay gis nit yi nu ñuy xoolee artiste dañuy yaakaar ni kii il est intouchable wala dañuy dem ba sax yaakaar nit du nit alors que artiste nit njaay la et nañ mën a jege nit yi nit yi nit yi nit yi mën a jege ñu quoi jege sa jege say nit je pense que c'est très important. très important ouais. et puis le faire de manière bien neex dafa baax. et puis mm. day tax nit ñi ñeme la j'ai vu euh, l'exemple avec ñoom Ada Cannibal. Mm-hmm. ñoom Almami 23-3. Mm-hmm. ñoom Karim Xurum Xax ñuy sonn lool ci saay-fa yi am si mbedd bi. Mm-hmm. mais je me dis que c'est une politique de décentralisation dafay mel ne mbapat la. pour rappel uh-huh, uh-huh. donc je pense que ça c'est un exemple à suivre pour yow. ak ñi nga xam ne ñoo mel ne yow te bëgg exceller par exemple si je prends les les les cas de Salif. Brida Man. Euh, les gosses qui chantent les babel et consorts mën essayer loolu et puis dafay tax dëkk bi animer la culture va se faire voir mm. bu dul télévision du rajo mm. donc euh, copier cet exemple de Mao mais def benn aaru mbedd ñu def euh, show mbedd aaru ah, je suis d'accord je suis preneur ñoo ko dégg ah, di ngeen ko gis <laughs> show mbedd aaru mbedd mais Badou Sambation du ñëw seen émission boobu non non day ñëw day ñëw non Badou renvoyé depuis 1982 non bët bi laa soxla bët bi alors benn affaire bi ma am <laughs> problème ak yow Mao hmm. yow lu tax koo ku ma romb mooy <laughs> kalaa romb ko. clip jox leen ma clip maaw bi dina comprendre li ma koy wax <laughs> taxaw leen ma fàttali leen waa seetaanal ba pare xoola xoola clip bi koo romb ko. ma dajeeg moom fees su fees ma mel ni ku dóor ma ko dóom uurul ay ni am na fii ci kaw leer gi mu àndal ni ëpp na na ko romb sa gestu wow xool ko te miiru loo yaa ngi xoole de gentu loo si si la nit la bro dafa ànd ak caaxas fu mu romb bay fa trace et la classe quoi qu'elle I let me down for nice and nice, oh, nice, nice and nice and nice, oh, nice, nice and nice. nga xam ni ayoo mooy ki faj sama aajo moom ak complication. Ah, nga ma dikkaatal ci sound bi début bi sa premier couplet avant ñu yegg si couplet Edmond et consorts mën nga ma dikkaatal ci sound bi début bi. mooy lan euh, yàgg nañ ma wax ay mbiram waaye. gërëm pourtant loolu <laughs> oh, yàgg nañ ma wax ay mbiram waaye gaw ma ko woon ma day ak moom face to face ma mel ne ku ñu ma ko doo. d'accord ndekete uurul ay ni coupé coupé <laughs> yàgg nañ la wax ay waxam. Ah. nga dajeeg moom. Ah. mel na dañ la dóor max doom. waaw ce qui m'intéresse c'est le mot dajeeg moom. waaw. rappelons-nous de l'histoire le premier tube de Mao qui était vraiment un tube c'était first time bi ma dajeeg yow. Ah, ay daje ma ne xam nga. yow saa yow dajeeg nit waaye mais Mao attends. finalement. waaw mais loolu la ay rencontre c'est comme film indo. Euh, waaw waaw yëpp vengeance la dama xaw a dama faa Aminata Bachchan ñu xam Aminata Bachchan xam naa Aminata Bachchan Allahu akbar je connais. <laughs> non voilà c'est euh, il faut dire que j'aime bien daje et puis j'aime bien bien l'amour en fait l'amour c'est bien. voilà loolu la et puis ma ma ànd ceeg Edmond. Euh, en avec beaucoup talent. c'est un gosse qui a beaucoup de talent Edmond Flow. c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. machallah voilà. C'est un vrai artiste, voilà. C'est un artiste, mais grave, quoi. Mm. Edmond, non seulement c'est un artiste, mm. mais c'est un jeune, il est créateur dans sa tête. Exactement. Il a Exactement. beaucoup de volonté. Beaucoup d'idées, beaucoup de... Beaucoup de... Euh, xam na fu mu jëm xam nga jéem am na fu mu focus jéemul xool li nekk à côté li ko gars yi di wax ak yooyu yëpp lui il a ses idées il les défend jusqu'au bout. Voilà. chante pour ça, nous. Hmm? chante pour nous une chanson que tu que tu peux nous chanter comme ça en a cappella qui va nous faire des frissons par exemple. bu ñuy wax ko ñeme def xanaa ci son yu bees yi. Euh, tu dis que tu es politicien. Hmm. que tu es. attends parce que morceau bu bees. que tu dis que tu es politicien. que tu veux aider les citoyens. Hmm. pendant les élections tu n'hésites pas à sortir les grands moyens. disponible gentil accessible comme Gandhi. Tu es l'enfant du quartier, avec l'État sans pitié, sans quartier. Maintenant que tu es élu, tu ne viens plus, tu nous as oubliés. Tu n'es plus le bienvenu, tu nous as trahis. Tu sais que c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Tu sais que c'est pas beau, c'est pas beau. politiciens yi noonu la ñu jàppee bétail électoral. bu ñu utiliser ba nu woteel leen. ba noppi mën nañu tegal chaîne lang ak ñun bus wala car mm. rapide on a vu ça dans ce Sénégal Mao ce fut un plaisir pour moi. Ben moi aussi c'était un plaisir toujours hein. toujours. et puis 2S c'est ma maison aussi hein. ci laa dëkk. Mao Sunshine, Mao Sidibé. C'est un artiste exceptionnel qui vient de sortir un son qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Les tubes de l'été aujourd'hui, au Sénégal, on peut en parler, on en a trois, si je ne trompe pas. Euh, nice So oh, oh, de Mao featuring Edmo Flow, c'est bien, c'est adorable, c'est juste génial, méga génialissime. On a aussi le son de Mass, Wadoul c'est aussi maximum, c'est grand. Mais le dernier, C'est celui qui vient de sortir en vidéo, mais qui était sorti dans l'album euh, de X-Press. C'est ce qu'on va regarder et se quitter, se donner rendez-vous. Alchemes, Inch'Allah, dans la rue cette fois-ci. Ce fut un réel plaisir pour nous. Peace out. On se regarde pour terminer. X-Press Vitamin Girl. Goodbye, everybody.